asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu mbokki jullit yi am yéenay jóg taxaw ci weddi ca kaw kaw waxi nguur si nga xam ni xolub keñaan ba nekkoon ci iblisul laayin ba ba tax di sayidul bashar wal xalqi ajmaina gane àdduna muy suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni iblis yaakaaram da daa da caa tase tas gu metti ba dafa wonk wonk gu rëy wonk koo xam ni mi ngi ko tollamti bi suratul fatiha wàccee ñaari wonk yi gën a rëy yooyu iblis genn gi bi nga ko wonk bis bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ganesee àdduna ak ak ganeseem àdduna nag waxtu wa saa yu masaan jot day doon waxtuy leer waxtuy barke waxtuy barkeelu waxtuy taataan aw yiw jullit ñépp di ko toppatoo kenn ku ne kemt lay xam-xamam wala man-manam ah léegi nag waaye iblis dafee bàyyi ay sët yoo xam ni da leen di financer ay financement ci wàllu dëgër fit ak di wax loo xam ni dara du ca dëgg bokk na ci ñooñee nguur sii nga xam ni wahabi bu set wecc bu wow koŋ nga xamante ni bokk na ci melokaani wahabi bi ci njëkk mooy moom bu sañoon ñu néew ñooy doon ay jullit ñu néew a néew néew ku mu gis day njëkk a jiital ci yow yéefar nga war a doon ba moo tax dégg nga waa ji li mu wax ak ñi gëm ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa kër yonent bi kan moo ci gën gëmut yàlla mais dégg nga ko pour dugg ba ci biir aalu rasul aalu baytihi mu fas yéene cee dugal sakk bu toll ni ngay sikki sàkk am na ci ñu ci gëm ak ñu ci gëm te nag ñan ñooy aalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñan ñooy waa këram waaye mu ne ñi gëm ci waa këram man de baat bi maa ngi koy dog a dégg maa ngi dog a dégg baat bi te it mi ngi koy wax ci jamono joo xam ni li ñuy wax gàmmu dafay jege si ndaxte ñu ngi ci weeru muharram te mi ngi sori te bu muharram jeexee li ciy topp mooy safar bu safar jeexee rabi moo cee topp te rabi moom yi ci la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna te bu dikkee jullit ñi faw danañ ko taxaw danañ màggal bis bi danañ ci bég te nag loolu mooy seen mooy mooy li leen gën a metti ci kaw suuf li leen gën a metti ñoom wahabi yu ni mooy ña ngay toppatoo lu aju ci yont bi di ko màggal di fàttaliku bisub judd juddoom di ci joxe ay alal di ci def ay kii bu ko defee كما سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به امين اك سيدنا الشيخ احمد الخديم عليه رضا الملك القديم نيوم نياريت نياري خيو خيو دنجكو ام يو خامني نيوم نيار نيو سوسلو نيك سي ويرو سفر بو جالي ربيع توب تي فكي فنا جيروم نيار سفر موي بيسو ختمية ولا كتمية فكي جيروم نيار سفر موي بيس بي سيدنا خادم الرسول cheikh ahmadul xadim alayhi ridal malikil baqil qadim waxoon ne bis bii li ma ci sama boroom may lott naa ci sant ko ñaan naa leen yéen samay mbokk ak samay jegeñaale ngeen sant le ma ci yàlla kàddu ga barkeel ba mujj mu mu doon màggal goo xamante ni bii gis ngeen ko ni mu toll ci Touba ñaari xew-xew yooyu te mooy guddik seex te moom moom it li mu doon wut ci yàlla guddi googu la ko yàlla may radiallahu anhum mu ne ma ngi ciy sant tey ñaan ñu sant la ko ci yàlla ñu wuyu leen ca loolu daa jublu si te la ca la ca seen gannaaw gën leen a foor mooy bisub juddub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo yëngal moo yëngal wahaabi yu ni ñu jëfur ñëpp dëmm dëmmub ceebo dëmmub ñamte gis nga dëmm ñi ngi gën a aay bu bu bu bu mbay mi commencé di ñor ku xef ñu lekk la wala ñu lekk sa doom ñoom murtala gi taxaw dañ temm nag ci jéem a wàññi luñ ma sa mën a wàññi ci wàllu yonent bi déglu leen li wax rek euh, te gis nga ñun gàmmu duñu ko mës a bàyyi ci nii wala ci nee kum neex ànd ceeg ñun kum naqari nga bàyyi waaye adduna bi yëpp ci gàmmu lañ jëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ñoo wax ninu inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafahatin tataarradu laha laalla an yusibakum nafhatun minha fala tasqawna baadaha abadan seen boroom yàlla fan yi ngeen di dund ci àdduna daf cee am ay maye yu muy maye sa bisu juddu ba sa bisu dee da ci am yenn te bis yoo xam ni yàlla da ciy jël ak may di ko wisaare rek da koy wasaare ni ngeen ci taataan tàllal leen ci seeni xel ak seeni loxo ak seeni xol ak seeni xalaat taataan ca ndax lee wenn fepp laal leen ca bu la ca wenn fepp laalee yow dootoo texee di mukk muy xadis bu wér ak tabaraani nettali ko ci almujamul kabir ñeneeni nettalikati xadis tamit nettali ko الطبراني نتل نكوتي آه، المعجم الكبير والمعجم الأوسط نتل نكو نتل يتكو نيني نت نتل كوتي نتل كتي أحاديثي نغا خمنتني بي أمنا سخ بو خمني دانيو وخني إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها ويوم الجمعة من تلك الأيام فينبغي التعرض لها في جميع نهاره بحضور القلب ولزوم الذكر والدعاء والنزوع عن وسواس الدنيا داخل ليغا ام تشادرا بس يالا دي ماي خيوال يوي دا واخني اديما تي لا بوك كون نك نين تاتان تي لولو تي ديرو بتيغو اديونا مبي اك غودي تي نوم كوي سو خولنا تيو nga saxoo di tudd yàlla ak di ko ñaan ak génnee mbiri àdduna sa xol bi bisub àjjuma buy màgg ak a foor kan moo ñu xamal ne bisub àjjuma am na ba bay bay foor ak a ñàkk foor mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu àjjuma dee foor mu ngi foore ci ron fooraayug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duñu dégg nag mukk suñu bi yonent bi yàlla yónni ko ci ñun mu wax ñu kàddu yu leere ni yii mu ñu wax ni ñu inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin fa taarradu laha ñu jóg di ko di taarrud nafxatun min nafaxaatillahi benn yéefar boo xamante ni nii bu ñuul kukk la wunk wunk wu bon ku bañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg taxaw ci ci diggante bi di sàkk lu muy wax duñ la déglu duñ la déglu nañ leen déglu ngóor si géey ak yu bon yi muy dox di wax te nag bàyyi leen xel ku mën a fen la puisque bu dee tudd bidaa kullu muhdasatin bidaa danaan yonent bi dani kullu muhdasatin ci diine bépp bépp ba bépp bidaa ci diine baatu ci diine jooju wallahi moom moo ko fen teg ko fi rek waaye amul benn xadis buum ñëw amul ci ahadis yépp ba ahadis jeex boo xamante ne bi yonent bi daf caa tudd kullu muhdasatin fi diini amul te na ko déglu moom noonu la tey jaare waaye nag tey moom bu soobee yàlla ku xef ci ñoom yowmal qiyaamate ngay fanaan gis nga jël tuuma jël xeebaate sotti ko ci kaw jullit ñi melokaan la cosaanu ci melokaanu wahabi yu ni nee na dañuy bëgg a def ay jataay pour waxtaana mbir moo xam ne jullit ñu bari dañ koo réere waaw moom moom lu nan la jullit ñi mën a réere moom muy gindiku ba ba moom mii moom mii nga xam ma xam ko mu xam boppam moom moo war a jóg pour ju jubbanti jullit ñi ci moom buy jubbanti jullit ñi fan la koy tàmbalee koo xamante ni bii yow moom kan moo jullit fi moom. koo xamante ni bii bu dee waa kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi jiital ci kaw seenu sikki seenu jullit yaa ngi ciy jiital sikki sàkk xam nga waxa bii rek ñoo fi xewaloon buñ dee ñaanal ku faatu dañ ciy boole ndegam yóbbaale na ak gëm yàlla kala bi mu génn àdduna. ñoom ñoo te loolu ñëpp lañ ko yemale nga dib saxaaba keneen ak yem bokkal ci saxaaba yi koo mën ci doon buñ munta bañ ñaan bu ñu la day ñaanal dañ naan ndegem deewaale na ak gëm yàlla muy muy lan muy luy dugg ci noppi ay ñu leen di topp ci ñoo xamante ni bii amuñu xam-xam amuñu njub te defee nañ lu waxa bi wax dëgg la suñ déggee loolu daal di koy gëm su ko defee loolu muy luñ ci jublu luñ ci wut mooy bu ñu bëggee wax ci nit ki lu jaaduwul buñ ko bëggee xeeb buñ ko bëggee xërëb li fekk euh, euh, toppale woon nañ àndale woon nañ dégagé woon nañ lépp loo xamante ni bii mën naa doon lu leen di te wax liñ bëgg a wax ci lu ñaaw ci nit ki saa yu leen neexee bu dee aadama ñu ni musrik la bu dee bu dee keneen la ci ci ci ci nit ñi gannaaw moom ma dib yonent moom lañuy ñuy askane sirk kon keneen waxi noppi keneen ku mënti doon soo ñëwee dangay ngay mën a rang ci gannaaw ñu bàyyi la fa leen neexee def la bokkaale kat wala def la ku ñàkk diine wala buñ buñ ko munut ñu tudde la ñoñ biddaa te moom na ko déglu ci biir waxtaan wi danga gis mu jël ay jaamoru yàlla taala yu jotalul dara tudde leen ñoñ biddaa tudde boppam ak kuréelam gu bon giñ àndal ahlu sunna bi waaye nag nañ leen ci dem ba xam fan la sunna bi mu jar jarradi tur wi kese fan nan la mën a gën a biddaa ci kaw tur tur tur rek lii biddaa la lii sunna la te tur yi dong ci ci tur yi la tàmbalee ci la yam nan la ci benn mën a gën a morom danañu ko leeral xëy na bu ko xamee su ko xamul mën daa leen ko leeral nu mu leerale buntub albidaatul xasana mu leer naañ ñi albidaatul xasana ñun doonuñu ci ñu ko ciy déglu moom ngir lan ak mën a fenam ak teggikoom ci kaw yoonu yàlla wu jub bi subhanahu wa taala ak réere gum réere waxu yonent bi sallallahu alayhi wa lu ko mooy bu fekkoonte ni du dafa réere tey réer réerlu yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon du wax lii mukk kon day dem jàngi euh, ñun dellu ci téere yàlla baax na ñun suñu sëriñ yi ñu jàngal yar ñu te ñu bokk ci ñoom ñu bokk ci ñun ñuy ñenn dañu ñuy tuxalal ci suñu maam yi gën a sell ñu xam leen ci Sénégal ñi dañu daan wax ñu ni ñuul ñuulu bindu alquran ak xadis mooy leer leeru yoonu yàlla bi maanaa soo bëggee aw fi yàlla awlu xoolal li yàlla wax ci alquran te alquran biñ ko dee bind ci jamono ji kayit wi liñ ci bind mbind ma day ñuul xadis tamit mbind mën a ñuul mu ni ñuul ñuulu xadis bii ak ñuul ñuulu aaya bii lañ santaane boo ca jaaree moo lay jox leer leeru yoonu yàlla subhanahu wa taala bii bii bii bii qaayida bu bu wér cëng bu dëggu waxaa bi mën naa wër adduna ba mu daj mu def lu mu xam lu mu xamul te du ko am mbokk yi déglu leen fii euh, imaam Ahmad ibnu Hanbal moo nu nettali te moom mu ngi dund ci alqurunul mufaddala ci alqarnu saalis ci la génn àdduna ndaxte ci deux cent quarante et la génn àdduna ci hijri moo nu nett li mu ni jarir ibnu abdullah di ab saxaabi yi dafa wax mu ni yonent bi nee na laa yasunnu abdun sunnatan saalihatan يعمل بها من بعده إلا كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ولا يسن عبد سنة سوء يعمل بها من بعده إلا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء mbokk julli دوما في fi yàgg ndax lii dañ koo leeral ba abdun amul benn benn benn jaam bu ñuul walla bu xees bu góor mbaa bu jigéen bu dëkk penku mbaa soowu mu sos laa ya sunna du sos abdun benn benn jaam sunnatan saalihatan sunna su rafet di ko def jóge fi bàyyi fi ay nit di ko def ci gannaawam lu dul ni day am tuyaaba ñay def ci gannaawam am tuyaaba te kenn du wàññi tuyaabay moroom ji moom fii de li ko tax a jóg mooy xew-xew yi ñu dëgmal te bi ci gën a rëy di màggal bisub juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi ga laylatul mawlidi léegi buñ ko bëggee weddi dañ naan loolu bu yàggul lañ ko sos wahaab yi kañ lañ ko sos moom kañ lañ sos wahaab yi mu mu bu fekkee luñ luñ sos rek baaxul wahaab yi bërki dem lañ ko sos ci nañ bàyyi wahaab yi gi yonent bi dañu amul benn jaam buy fent yoon wu rafet jaar ci ay nit jaar ca ànd kook moom lu dul ñoom ñëpp daal leen bindal tuyaaba tuyaaba kenn du wàññi ka ca def léegi gàmm lu muy tekki ndax dañ ciy tuutal yonent bi ak ah, déedéet ndax dañ ciy réeral jullit ñi déedéet ndax dañ leen ci di loo ci wàllu jaamu yàlla déedéet ndax dañ leen di woo ci dajab jëw déedéet lu ñu leen di doyee wala màggal yonent bi sallallahu alayhi jox ko jëmmam jox ko li ñu xam lépp nit mën koo xam ñu wan ko nit ñi pour nit ñi mën koo fonk ba mën a xam ne ni ay waxam ak waxi keneen yemuñu ay jëfam ak jëfi keneen yemuñu jox ko xàqam yëkkati ko ba mu kawe ba ñu xamante ni bii bu ñuy topp Cheikh Tidiane Seri mbaa ñuy topp Serigne Touba dañ koy topp ci kaw mi ngi ñuy wan fi yonent bi jaaroon sallallahu alayhi wasallam waaye nag yonent bii moom la ñu yàlla xooloo moom la ñu moom la ñu topploo keneen ku ñuy topp mbaa ñu lay xool daa fekk yaa ngi topp ci gannaawam ni ki ku ñuy jiitu julli waaye nag yonent bi moom moom moom moom moom mbir yi mooy saaxibu shariati wal burhaan ñu jàngal la mooy kan jàngal la ci moom léppam duñ ci bàyyi leen te léppam nag nga mën koo jaamoo yàlla lépp ndax léppam sunna la ñu ni lii daal dañ ko jàppal bis bu ñu mënoon bis bi nañu def lii ñu def ko mais buñ ko mënul lu gàtt gàtt at mi dañ ci daje ñu ni bis bi gën a yell pour daje ko mooy bis bi mu gën a àdduna mu nekk ab xew-xew bu bees roo yëpp wuyu ndaxte bis boobu li ci yàlla amal bisub juddoom li ci yàlla amal mosu ko amal ci beneen bis ñu fay jànge di fa joxe alal di fa jubal nit ñi di fa leeral di fa def lu baax ay nit jóge ca àll ba di saay-saay ni nag loolu dañ koy xaraamal loolu kese la waa ji آه، امام الترمذي دا فصلى مومن موني من سن سنه خير فتبع عليها فله اجره ومثل اجور من اتبعه غير منقوص من اجورهم شيئا ومن سن سنه شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل اوزار من اتبعه غير منقوص من اوزارهم شيئا ku sos sunna su baax ñu topp la ca danañ la fay fay ña la topp te seenu fay du wàññi sag fay dara ku sos sunna su bon léegi nag buñ de buñ seetoon ki sos tasawuf ki sos tariqa boog ne tasawuf moom juz'un min ad-diini laa yatajazza waaye ki sos ab tariqa ak ki sosub madhab ak ki sosub madrasa ñett ñii ñu seet ki sot sos tariqa mu ne daa bëgg ñu góor góorgóorlu ci jaanibul ihsaan ki sos madhab mu ne dama bëgg ñu góorgóorlu ci jaanibul fiq ki sos madrasa mu ne dama bëgg ñu góorgóorlu ci jaamiu ci ci ci ci jaanibu ak tawxiid ki sos ak wahaab yi ñu ne ko loo bëgg mu ni man yàq li li ñoo ñuy bëgg laay la la moo tax ma sos ñett ñi ñeent ñi ku ci am tuyaaba ak kan ñan am tuyaaba ak kan moo ci bari bàkkaar waxaa bi mooy jël bàkkaar bi puisque bi nekkoo lu tax nga sos sa ngir mi dañu pour ma jaxase lu nit ñu baax ñu di def ñi fiy jàng fiq ma yàq ko ñi fiy jàng tawxiid ma yàq ko ñi fiy jàng suluk ma yàq ko bu ko defee nag ñooy gàddu bàkkaar yi loolu loolu rek la sawaay di dox te ahadis yu bari ñoom duñ ko di jàng sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu woon man na xayran man istanna xayran ku sos aw yiw fastunna bihi royees ko ca kaana lahu ajruhu kaamilan wa min ujuri man istanna bihi dana amuk pay boppam ak pay ka ka ko ca topp wala yanqusu min ujurihim shay'an te la muy am ci pay moom du yàq pay wala mu wàññi pay ña ko ña ko roy wa man istanna sunnatan sayyi'atan fastunna bihi ku fi sos na ngir mu bon ni ki wahabiyatu ay nit roy la ca fa alayhi wisruhu kaamilan dana jot bàkkaaram bu mat sëkk wa min awsaari alladina stanna bihi ak bàkkaaru ñi nga xamante ni bii dañ ko caa roy wala yanqusu min awsaarihim shay'an te te la muy am ci seen bàkkaar du tee ñoom it seen bàkkaar toll nam toll woon loolu ibnu maaja moo ko solo mu nekk ay ahadis yu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ni ñu ayuma daain daa ila dalalatin fa tubia كيف كفي واته جملة تكانك تاني تطبلك نكو هابي يريد فيه فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع كيف كفي واته لو باخ نروي لتي نكي كايلي نو عند جانج كان مو يونتبي مقدل كان مو يونتبي صلى الله عليه وسلم غير نيو من كو تطب képp ko woote loolu fa tubia bés topp la ca fa inna lahu mithla ujuri mani tabaahu da nga am tuyaaba ju toll dañu la topp ñëpp xoolal tuwaawoon bu ñu gàmmoo ba noppi lañuy ñuy commencé waat di programme gàmmu ëllëg ñaata nag lañuy ñuy soxla nag yooyu bu doon ñu sant si képp duñu wuti nag nag yooyu jullit ñi dañ koy dee te duñ ko jaay kenn ñaata toni ceeb la ñuy soxla ñaata la soxla ci dëwlin lu ñuy soxla ci ndox lu ñuy soxla ci sécurité lan la ñuy soxla ci lépp lu nit di jariñoo nga xam ne yëkkati jox ko nit ki rek ñaata nit dafay ñëw ci ñàkk bu ñu fay jógee yóbbu alal ju bari ju lew man man koo jariñoo seen dëkk waaw ngeen baal ba léegi bu fekkee gàmm mooy nett li jaar jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg ki nga koy nett li ci biir nett li gi mu xam ci yonent bi mooy kan sallallahu alayhi wa nga mën ko cee wan jikkoom yu rafet ndax yàlla yonent bi neex ko ba mu mën koo topp gëm ko di ko topp pour loolu nekk texeem tey ak ëllëg léegi nett li jaar jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan lay mën a amee nett li ay jaar jaaram ba mat ba pare te fekk yëpp da koy fekkee loolu mënut a nekk di yonent bi ndax bis bi mu faatoo la fa xew moom ci boppam fekke na ko ba mën ñu ko nettali nañ ko waajale ci wàllu sang ba bañ ko bëggee dem ba bëgg koo sang nan lees ko sang façon sangin woow yi léegi ba bañ ko dee jullee façon julli win woow yi ku ko siyaare ci xabroom looy wax lool yi gannaawam la xew nag mbokk yi wax dëgg yàlla bu fekkee dañ ni lu mu mus sa def kenn du ko def kon waruñoo nettali kon sax siiraat wax ne mi ngi judd ci at sàngam ci diggante wayjur wu góor sàngam wayjurum wu jigéen faatu at sàngam di ko topp noonu di ko topp sababuhu ma xulaamu sabahu abadan di ko topp noonu di ko topp di ko topp di ko topp ba bis bi mu gisanteeg jibril ba ba yàlla ni ko loolu kat lu xew la muxuti dara nit ñi ñooy ñëw di ko nettali te nag buñ ko nettaliwut ay am te wahabi yu ni ñoom am na benn bis ñu doon fi essayé pour toppandoo yonent bi ci seen sëriñ wahabi yu ni yii nguur si Murtala mii Mor Mor mii seen sëriñ bis nee nañ dañ ko fi essayé jéem toppandoo ci liñ defal yonent bi te mooy jël ab dagg ab semaine um lëm tudde ko semaine um jaamu yàlla ñun leen waaw jaamu yàlla gi mooy lan ñu ni dañ ciy li jaar jaar yi Muhammad ibnu Abdul Wahab ak tamit njukkal ko ci li nga xam moom la liggéey ñun waaw ñoom est-ce que mënuñu war a yem ci ni dañuy jël benn semaine wala wenn weer wala lu leen neex ci jamono ni dañ ciy nekk li jaar jaar jaari Muhammad ibn Abdul Wahab te yem ca waa ñoom dañ ko tuddee jaamu yàlla te loolu bun ba euh, bun moo ko wax moom mii du wax ca loola dara te naan xiim buñ nee nag te te Muhammad ibn Abdul Wahab yàlla yónniwu ko ci ñun saytaane rajim la rajim maa la ko wax nag di la bàyyi ko lii fi yàq ci diine ji moo ko yàq moo ko ñu bëgg a jël na ak semaine jagleel ko ko pour mu nekk ak jaamu yàlla jaamu yàlla googu kon ku ko def am tiyaabu ku ko tardé mbaa doo am bàkkaar bu fekkee yàllaa ko santaane ku ko deful da nga am bàkkaar te ñun yëguñu ko bokkuñu ca du jaamu yàlla fenn te bu fekkee dafa bëgg a wax ci biddaa bu ñaaw wala bu rafet ñun wax dëgg yàlla maanaam sos lu bees lu baax daal dafa bokk ci suñ diine mu ne su ko tàqali ko mu tàqaleeg ñun laa ya sunnu laa ya sunnu abdun sunnatan saalihatan def lu bon dafa xaraam ci ñun bokkul suñ diine moo tax kenn mënuñu koo def lool laa yasunnu abdun sunnata suuin jeex na su loolu jàllee biddaa rafet ñun mën nañ koo génne ci ahadis yi ñu leen wax waaye mën nañ koo gën a tee génne ci lu ñu Seydina Umar ibnul Xattaab wax muy kenn ci ñu foor ci lislaam nga xamante ni bii bu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàllee mooy ñaareelu ñi gën a foor ci diini ji moom moo ñu defal mbir tuddeel ñu ko bidaa tagg ko teg ci ni'matil bidaatu haadihi muy muy muy wax bu wér bu bawoo ci moom imam malik nett li ñu ko imam buxaari nett lu ñu ko ñëpp nangu ko ni'matil bidaatu haadihi te te te waa ji murtala moo la moor fen yi muy fen mooy yonente ba al bidaatu fi diin biddaa ci diine lay lay wax te wallahi loolu amul te danañ ci agsi mujahid bokk ci taabiroon yi di boroom xam-xam di mu fassir bu mag nee na maag urwatu bnu zubayr dañoo ñëw ci jàkkay Medina bañ dikkee ñu fekk fa abdullah ibnu omar mu toog ci buntu nekk sayyidatna aïcha ñu séen nële ay nit ñuy julli ca jàkka ji ko ni ko waaw Seydina Abdoulaye ñee julli gi julli lu mu ne ma biddaa la rek biddaa dong la waaye nag biddaa bu baax la saabi yu mu ni moom moo dégg Seydina Abdullah ibn Umar mu ni mabtada al muslimuna bidaatan afdala min salaati duha jullit ñi biddaa yi ñu def bi ci bi ma ci gën a neex bi ci gën a rafet ci man mooy jullit yoor yoor te lii ma la wax jële ko ci tàmbalee ko ci li la wax ci mujahid moo ko ubay urwatu bnu zubayr ak saydna abdullah ibnu umar ibn xataab radiallahu anhum jamian boo demee ci ibnu battal fi muy sara saxiixul buxaari da nga ko fa fekk umdatul qaari boo fa demee fi nga xamante bi al ayni fi muy sara moom it saxiixul buxaari da nga ko fa fekk boo demee tamit fi muy fi muy sarxoo saxiixu muslim danga fa fekk wax ji léegi nag ñu continuer bi bidaa bu rafet moom wax dëgg yàlla wahaab yi dafa mënta moytandi ko ay fen rek waaye moom lu am la ci diine ji tey lu waa diine ji saxalal seen bopp la koo xam ne nag da ngaa ci diine ji ba pare bëgg bëgg bëgg ko àtte loolu mooy jur coono yi coono yi li li ñuy sonal mooy waa joo xam ne laysa min al islaami fii ba pare waxuma la yëmul ci bokku ci islam mais da ci da bëgg a boole bokku ci ba pare nag doon ci njiit lu foor waaye nag bu bu bu bu bu doon jeexul waax sulu du jeex boo ñëwee ci ibnu taymiya ci téere boobu mu tudde qaidatun jalilatun fi tawassuli wal wasila ibnu taymiya daf caa mu ni kullu bidaatin laysat waajibatan wala mustahabatan fa hiya bidaatun sayiatun wa hiya dalaalatun bittifaaqil muslimin jullit ñëpp juboo nañ ci biddaa bu noo bu doonul bu war doonul buñ sopp kon baaxul ñun jullit ñi ci loolu lañ juboo ibnu taymiya saxal na ko ñëpp saxal ko yow nga ñëw bëgg a xar ijmaa gi bëgg andi la te li ngay wax koo ko àndal ban boroom xam-xama ko wax fan la ko bind bépp bidda day mën a doon bu war ñu bàyyi ko ci diine ji mbaa boo doonul bu war waa doon buñ sopp waaye waaye bu doonul bu war du buñ sopp booba bon la dañ koy génne ci diine ci loolu boo demee ci qaidatun jalilatun fi tawassuli wal wasila nii la ko ibnu taymiya waxee kullu bidaatin laysat waajibatan wala mustahabatan fa hiya bidaatun sayiatun wa hiya dalalatun bi ittifaqi buñ demee ci buñ demee ci ibnu xajar al asqalaani moom daniñu sayidna omar ibnu alxataab ibnu xajar dafa wax mu ne sayidna omar ibnu alxataab bi mu ne nicmatil bidaatu haadihi lim ci jublu mooy jëf la joo xam ni kenn musu ko fee def guléet baa ngi nii muy nag fa ma waafaqa sunnata fa xasanun li ci dëppoog sunna ci jëf yu yu nit ñi jekki-jekki di ko def loola lu baax la wa ma xaalafa fa dalaalatun lu ca wuuteeg sunna nag loola mooy dig cànkute wa huwa al muraadu xaysu waqaa azamul bidaati mu ni li ñu jublu ci dalaala foo ko dégg ñu ñu askan ko ci biddaa rek ñu ngi ci jublu biddaa ba nga xam ni dafa mu xaalafaak sunna boo déggee ñu ni biddaa bii de dalaala la rek ibnu xajar al asqalaani nee na loolu la ko ko yóbbe mooy daa wuuteeg sunna nde ñu wuutewul woon day nekk bidaa xasana waaw lii danañ ko jàng ku toll ne ibnu taymi ibnu ibnu ibnu xajar al asqalaani jàngal ñu ko léegi benn booy bu ndaw boo xamante ni bii dafa jaay boppam jaay diineem jaay aw melokaanam nim nim ni bëggoon a mel bokkut ak ni muy mel mel lu ndaxte noonu moo neex ñi mu jaay seen bopp ku la ku nga xool fa ko neex bëgg a ñëw dindi loo xam ni ñépp ko saxal jullit ñépp xaysuma waqaa damul bidaa foo gisee ñu xas fa bidaa mooy bidaa boo xam ne xaalafa assunnata déglu nii la ko wax qawlu omara nicmatil bidaatu huwa filu ma lam yusbaq ilayhi فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة wa ma lam yuwaafiq wa lam yuxaalif fa ala aslil loo xam ne dëppoowul ak sunna wuutewul ak moom it nee na loolu day dugg ci dañ ko day def ci cosaanu doon lu lu lu dagan mbir mii de wax dëgg amuñu benn xadis bu koy saxal mënuñu koo dëppaleeg sunna de ndax amul benn xadis wala benn aaya bu koy saxal waaye it noonu la ñàkke xadis wala aaya bu koy bi di ko dàq amuñu benn benn benn xadis bu nu naan leen kafe tàkkusaan wala aaye waaye it amuñu benn benn xadis bu nu ni bu kenn naan kafe tàkkusaan mu ne bu boobaa kafe day des ci doon lu dagan bu boobaa bu xasee dagan rek jeex na ku bëgg naan ku bàyyi ba ku bëggul ba waaye xanaa nag dooni man bëgguma kenn du ko fi bëggee ma ngoog léegi suñ ci ngóor si même yenn ti wahaabiyun علي ابن نايف السحود امنا بين تيرم بوتو دي موسوعه الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفي لي دون دون دون وهابي دي نيل بيم نيو ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون في سوره الحديد دني aaya bii de kenn mënu cee tegtaloo ni biddaa yëpp yëpp yëpp dañ leen a war a rafetlu laysa fi hadihi al ayati dalilun ala istixsaani al bidai min kulli al wujuhi al muhtamala min xam la muy tekki nee na aaya ji daal waruñu cee mën a sukkandiku nag puisque waru doonul sukkandikukaay pour façon bu biddaa mën a dikk rek ñu ne bu baax la loolu mooy ne am na noon bu ñu dikkee danañ danañ ko nangu daa am na ñuy bañ waaye am na nu ñuy nangu laysa fi hadihi al ayati dalilun ala istihsani al bidai min kulli al wujuhi amul ci aaya ji tegtal buy rafetlu biddaa ci anam gu mën ci doone loolu li muy tekki dëgg-dëgg mooy am na anam goog bu ni biddaa bi tëddee danañ ko nangu te moom gënuñoo dégg aaya ji gënuñoo xam lu ko lu lu munasabatu sababu nuzulil aaya gënuñu koo xam waaye lu bon bon donte lee moom ci waxkati njaaxum yi la bokk waaye fii moom noppi na ci soo ñëwee ci ci ci ci hmm, Shamsuddin as-Safiri bi muy saraa saxiixu al Buxaari nga ñëw ci an-Nawawi bi muy sharah sahih muslim nga ñëw ci al-mulla nuruddin ali ibn sulta ibn sulta muhammad al-harawi al-qari bi muy sharah mom ta bi muy bind téere bi tudd jam'ul wasa'il fi sharh sarxi samail wala nga ñëw ci waaw bo ñewé ci ci ñetti tere yoyu benn bi day saraa saxiixul buxaari samsuddin ak safiir yi moo ko bind benn bi saxiixu muslim lay saraa annawawi moo ko bind benn bi mi ngi tudd jamcul wasaili fi sarxil masaili ali ibnu sultan ibnu sultan muhammad abul hasan nuruddin almulla harawi alharawi moo ko bind ñoom ñett ñi lan lañ wax dañ ni damma allahu man ictaada ibadatan summa farrata ذم الله من اعتاد عبادة ثم فرط بني بطيتي مرعاة المفاتيح شرح مسكات المصابيح مبار فوري موك دني الآية تموي ورهبانية نبتدعوها بأي الآية دي لأن الآية سيقت في معرض ذمهم ala adami riayati maltazamuhu min alqurabi allati lam tuktab alayhim laaye ji dañ koo indi muy yedd ak di ŋàññi ay nit ñoo xamante ni bii dañoo jëloon ak jaamu yàlla waral ko ci seen kaw pour jaamoo ko yàlla te bokkutoon nag ci li yàlla farataal ci ñoom ñu dem ba yàgg ñu ba ko ay nit lañ yoo xam ne ci nasaraan yi lañ bokkoon jël ak xeetu jaamu yàlla gàll ko ci seen kaw gàlloo ko warlul ko seen bopp dem ba mu neex leen ñu bàyyi ko muy rahbaniyatu te yàlla dani wajaalna fi qulubi alladina tabauhu ñun yàlla ñu def ci xolub ñi nga xamante ni bii dañu ko topp moom isa rafatan wa rahma ak ñeewante ku mbëgg ak ak ak yërmande wa rahbaniyatan rahbaaniya nag moom defu defuma ko man yàlla de santaane wu ko de waaye ñoom ibtadauha ñoo ko fent wa rahbaaniya tan bu dee rahbaaniya ci boppam nag moom man rafatu ak rahmatu laa def ci seeni xol amma rahbaaniyatu nag ñoom ñoo ko sosal seen bopp maa katabnaaha alayhim farataalu ma ko seen kaw de ñoo ko sosal seen bopp warlul ko seen bopp defewuñ ko dara nag illa ibtigaa ridwaanillahi doon wut lu neex yàlla leen ca joo waaye nag fama raawha xaqa riayatiha ñoom nag sàmmuñu ko sàmm nga ca war dëgg dëgg sàmm nga defuñu ko ah gannaaw na ñoo ko sàmmul fa aatayna alladina amanu minhum ajrahum ña ca góorgóorlu woon sàmm ko ñoom ma fay leen ña ca des nag ma baleen ñu di saay nga gis ni rahbaaniya am nañ ca pay ca ña ko ca sàmm ñun buñ buñ ñu bu ñu fonkee màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàll ko suñ kaw bopp di ci wut lu neex yàlla gannaaw ñii ñoo ci amoon lii ñun lu jeeba duñ ci am loolu wahabi yi dañuy fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu woon na ma warlul juróom mbir ma warlul leen may juróom-benn mbir leen ma juróom-benn mbir ma warlul leen àjjana sax la wax warlul leen ma juróom-benn yii ma warlul leen àjjana ñu ni ko waxal ñu dégg mu ni bu ci njëkk mooy bu ngeen dee wax di leen wax dëgg wahaab yi deen wax dëgg bàyyi leen fen tëgoogu leen si yoonu àjjana ndax da ngeen mën a fen ngeen a mën a fen trop te albidaatul xasana damaa bëgg sakk tëj fël yi tël fël yi ñi nga xam ne moom la jarax di def ci mpaxam yëpp laa bëgg tëj benn yoon ba wahaab yi bi su ëllëgee buy wax bu noppi rek di yëg ni day fen ku dégg wax ji tamit xam ni day fen Muhammad ibnu Abdul Wahab mi seen sëriñ bañ ko laajee ñu ko waaw yow sa woote bi woote lu mu foo bokk loo ci jublu mu ni li ma jublu ci woote bi maa ngi leen koy leeral mooy dama bëgg ñu ànd jaamu yàlla te bu boobaa nag lépp luy bokkaale dafiy jóg lépp lépp luy bokkaale dafiy jóg allool de boo ko waxee jullit da nga naan ko da nga naan ko lu fekk nga ma ci mu ni benn ñaareel mooy dama bëgg ñu ànd na topp si bi ومتابعة الرسول دقل ما أخذ نص بي ومتابعة الرسول فيها نخلع جميع البداية بندى خسنك بيتا بريانسي بمم بدا دور في أمتي بدا يبلي يبدي سامي إلا بدعة لها أصل في الشرع بام دس بدا بو خمنتني بي دا أم تشاد دا أم أي رين بمعنى تي دين جي لسوقكو لها أصل في الشرع موي تي دين جي لسوقكو تي لبوك mu joxe ci misaal ka jamail mushafi fii kitaabin waahid niki dajale alquran def ko benn téere ndekete yote kon ñun kaamil yi ñu yor Muhammad ibnu Abdul Wahab moom li mu ko jàppe mooy biddaal te moo ko bind wa jamacu Umara radiallahu anhu alsahabata ala tarawixi jamaatan ak dajale gu Seydina Umar ibnu Xattaab dajale woon saxaaba yi ñuy julli julli naafila ci weeru koor ci gannaaw jenn ilimaan ndekete kon ñun naafile weeru koor yi ñuy wax Muhammad ibnu Abdul Wahab nee na loolu biddaa ak ban wa jama ibnu masudin ashaabahu ala alqasasi kulla xamisi ak boole dajale goo xamante ni bii abdullah ibnu masud da daan dajale ay gaayam bisub Euh, bisub nu mu tuddati alxamis bu ne pour di leen ci waar mu ni wa naxri dalika ak yu demee ni ki yooyu kon nga xam ni moom xam na yeneen biddaa jàpp na yeneen mbir ci diina ci ay biddaa yoo xam ni waxuñu ko waaye wa naxri dalika ji moo ñu koy wan mu ni fa haada lii ma la wax lii te mooy dajale kaamil bi nekk gum nekk biddaa ak julli naa fi ci gannaaw ilimaan nekk gum nekk biddaa ak sàkk bis di ci waaraate nek gum nek bidda mu ne fa hada xasanun ak yini deme fa hada xasanun wallahu alam so deme ci mawsuatu mu'allafat al imam Muhammad ibn abd al da nga ko ca fekk boo demee ci al-shaykh ñaari téere lañu defar waye ben la lépp bo deme da ko ci fek ni ma la ko waxe mbokk yi dégg ngeen mu ni yonent bi moo wax bépp biddaa ci diine ak réer la léegi bu ñu neexee ñu bàyyi noonu bu ñu neexee ñu topp ko ni ko baat bi tekki ni biddaa ci diine ji la yonent bi wax bu fekkee yonent bi ko tudd tasxiix ko nañu indi riwaaya bi ban xadis la nekk bu fekkente ni yonent bi tasxiixu ko moom nan la ñu gën a mën a dégg arab ba bëgg ci dugal ni bépp biddaa ci diine la yonent bi wax loolu fan la ko jële bii sañ-sañ bi maanaa bii sañ-sañ fan lañ ko jële ñoom ndax dafa dañoo am seen arab yi bopp ñoom wahabi yu nii yoo xam ni kenn fekk siw leen ci nga xam ni ñoom ca la ñuy sàkk di ñu wax nga xam ne ñun dañuy déglu bañ bañ ni ñoom nii lañ ko waxee ñoom ñu gis ngeen su ngeen déggee loolu yi ñu ñu ñu xewal léegi te mooy fahmu salafi hadihi umma loolu bokkul ci bokkul ci masaadir yi de maanaam yi ñu war a jëfandikoo yi ñu war a sikkandikoo sukkandiku bu ñuy jaamu yàlla fahmu salafi hadihi umma bokku ci de ñoom nag ñoo ko ci bëgg a indi puisque dana doon ngànnaay lu leen mën a dimbali pour su fekkente ne nee nañ la lii saxaaba yi mësuñu koo def kon day daal di nekk lu bon nga daal di fas say loxo doo mën a jàll waaye xam nga léegi li nit ki fëhmu lépp nan nga ko mën a xamee nit ki lim fëhmu lépp man fi mu toll ni misaal ma ci joxe lam yakuni alladina kafaru li ma ci mën a fëhmu kan ci yéen wala kan ci nit ñi ba nit ñi jeex moo ma mën a séen nii rek xam ne fëhmu naa ci nangam ak nangam ñoom xam nañ ni buñ ni woon ñoom xam nañ ni buñ ni woon jëfi jëf jëfi saxaaba yi duñ duñ ko mën a peeg ndax danañ leen li saxaaba yi jëf yëpp te nag li saxaaba yi yëpp ndax ñun yàlla dañu koo def loo wala daf ñu ko wala wala wala déet ñun yàlla li saxaaba yi def lo def ah duñ ko mën a wax xam nga lu tax ñuy moytandiku li saxaaba yi def buñ ni woon li saxaaba yi di def kon ñun dañ naan leen yéen a ko wax te saxaaba yi ah amna ci ko wax ni'matil bidatu hadhihi ci sahaba yi amna ci kog da dan top fu yonent bi mas a jaar julli fa mu jaar fa julli fa momit ñu ni kon buñ waxe li sahaba yi dan def kon ñun ñoy ñoy xal yoon nañ nañ wax fahmu salaf hadhihi al umma puisque bo ne fahmu mom dana nekk loo xam ni ku ko dégg danaan tekk bu dee ku yewul yeewul tek da ca xalat su ko defé ñun ñu bana profito dal di jàll fahmu salafi hadihi l umma bu leen ko kenn waxal mbokk yi ku leen ko waxal ne leen ko loolu c'est faux ay fola rek ak i faux du dara ndaxte da dafa dafa dafa nekkul maktub dafa mënta nekk manquul ndaxte kenn da ko tasrixul fenn yaa ngi nii benn bis Seydina Abdullah ab Abbas dafa wax ni jamonoy Seydina Omar Seydina Omar da ko daan faral di di woot ci jataay yi mu mu koy fekke di ko di koy da koy toogloo fi mag ñi di toog Seydina Abdullah ibn Abbas a ko nett li nee na Seydina Omar dafa daan baaxoo rek bu bu mag ñi toogee rek mu woo ma ni ma dikkal toog ba bis magi saxaaba yi am ci ñu xam daal dañ ne waaw gone gi moom saa yuñ toogee rek ñu woo ci suñ biir mu toog moom léegi Seydina Omar ba mu ba mu ba mu yëgee loolu waxantewu ci xam nga nu defa dafa bàyyi ba ñëpp toog mu leen waaw yéen ida jaa nasrullahi yéen yéen yéen lan ngeen ci dégg dëgg-dëgg fekk boobu yonent bi jóge na fi sallallahu alayhi wa sallam mu ni saxaaba yi yéen lan ngeen mën a fahmoo ci aay ji ci saaro ida jaa nasrullahi ah ñu wax ko lañ ci fahmu ni ko loolu de moom liñ ci fahmu mooy sa borom sa boroom dafa wax ni bu xéewalam yi bu ubbee màkk ah nit ñi dugg si ci diine ji na nga jégglu sa boroom yow Muhammad na nga ko sàbbaal te jégglu ko te xam ne moom ko mën a baale la ñun de loolu dong lañ ci dégg mu ne Abdullah ibn Abbas yow loo ci dégg mu ne ko mën ne li ma ci dégg mooy saar woowu day doon tàgge yonent bi mu ne ñëpp ne ah wax na dëgg de mu leen lii nag moo tax ma daan ko toogloo ci suñ biir gone la waaye rek daa am lu mu xam waaw ah, léegi Abdullah ibn Abbas maa ngi ñëw gannaaw lu mu nekk daanaka xëybu rek ci ci keneen ku dul kenn ku nekk la nga ca yor xëybu la teg ca keneen ka ca ci saxaaba na yow nga xam ne bu dee ñun nag nga ni nga ni ñun nag mu gën a te naqaree xam ndax ka nga dundandoo wut lam mu foofu mu nga bëgg koo xam ki ngay dundandool sax lim mu foofu mu mënoo koo xam asama ka nga wul nga xam ne xëybu xëybuy kese la te ci suratul suratul talaq يالا دا فاخ سبحانه وتعالى مني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما لجي يتنزل الامر بينهن آه، بين بين سبع سماوات اك سبع عربينه لجي يتنزل الأمر بينهن نح بين السماوات السبع إلى كسر ولا بين الأرضين السبع كسر ولا بين السماوات السبع والأرضين بنتلا لجي سيدنا آه، علي بن أبي طالب نين الأيدي لمتي فهم بموكو بندون نكيد على لتكيد بو إجع بنكو سفينة دي جليم دنكو خواتم ci yetanazalul amru baynahunna ji nee na lim ci xam su ko bindoon ci këyit ba mu jeex nga xam lim xam lépp bind na ko ci këyit yooyu buñ dajalee këyit ya dana mat sëfub ñaari giléem te dana leen xaw a léegi nag yow ñu ni la ni mu fëhmoo yow noonu nga war a fëhmoo foo jaar kii li mu fëhmoo waxuma la nga fëhmoo ko waaye bu bu la ko bu la ko doon sax sax doo doo yeggal ba boo noppi ndax mën nga ko tatbiq pour rek ma leeral ni wahaabi dañuy gannaaw ñoom diine ju bees lañ yor te ni koy togg te ñoragul lu ne mën na ci am lu ne mën nañ koo boole ci mbir mi puisque ay nit ay toog di seet naan bu bu bu bu bu jullit ñi waxee nangam ñun nan lañ war a wax pour contrecarrer leen ci côté boobu ci loolu la ñuy indee yi ngay dégg ñu ko indi su ko defee maa ngi tëj waxtaan wi di leen won xeebeel gi nga xam ni moom la wahabi xeet jullit ñi ba waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun ñëpp ñoom lañ def suñ kanam ñoom dañ cay tànn ñu gëm yàlla ñu ko ci gëmul waxu yonent bi tamit dañ cay dolli te dolli gi dolli gi dañ koy fenal rek te fen yet ñoo ko tey waa joo xamante ni bii waa kër yonent bi seenu gëm yàlla wóoluwu ko gëmu ko ba tax da da ciy dugalu settee li yonent bi wax tamit munu caayam doyu ko faaw da koy yokk ba pare nag bëgg doon na suñ njiit ci wàllu diine man lii laa mënta xam nan lay mën a nekk kii nan lay mën a nekke suñ njiit ci wàllu diine xam nga bu xam nga wahabi foo ko fekk du ay mbiram ci boppam du koy lëndëm day lëndëm ci moom dañuy fàtte ne ñoom ay wahabi yi la dañuy fàtte ne ñoom yu massiluuna wala yu sakkiluuna illa maa rasan wa najaasatan fil ummati ñoom sarataanul umma lañ leen tuddi woon fil asli sarataanul umma léegi sax covid 19 mi raw sarataan ñoom biñ ñëwee bi bi sarataan bi bi bi feebar boobu xewee ñoom ñu ngi représenté lu gën a garaaw sarataan da nga koy fàtte nag fi ne nii géej bu dee wax nii day fàtte ni moom wahabi la day fàtte ni moom lam yu faariqi najasata xatta al aan su ko defee maa ngi koy moytandikuloo moom di leen moytandikuloo yéen fenal yonent bi ak xeet ko xeebu askanam bu fi kenn ci ñun waxati ñi gëm ci waa këram bu ko kenn déggati teg ko déggit na nga ko naqarlu bépp biddaa ci diineet su leen ko nit waxee nee leen ko bëgg nañ nga bañ a gaawantu bul gaawantu jàll wax ñu ban kalima ci nafsu xadis bi mooy tegtale ni yonent bi bi muy wax kullu bidaatin kullu muxdasatin bidaatun wa kullu bidaatin dalaalatun lan moo ci génnee biddaa yi nga xamante ni bii duñ ci diine nekkuñu ci diine du la mën a wax lu dul ay ay kasaw kasaw bi maanaam bi yonent bi ne kullu muhdasatin bidaatun foofu ñoom d'accord ñoo yonent bi bi mu nee na kullu bidaatin dalaala ba tey d'accord ñoo umma bi ñoom ànduñoo yonent bi ànduñoo umma bi parce que bi kullu la wax rek istisnaa wu ca lenn ak lenn ci lu leer ci benn waxam ñoom nag ñu isti ñu génnee ca la leen neex foo xamante ni bii nag dafa ñëw umma bi ni jubluwul lépp ñu ñu wuuteeg umma bi foofa kon ñoom du bokkuñu ci umma bi bokkuñu ci fenn neexul ba neexul man damay doon bëgg a changer méthode changer uslub changer discours ci ñoom waaye wax dëgg yàlla man ñi mënuma leen a teg ni ay jullit dëgg xalaatuma ko sax mënuma ko su ko defee maa ngi yem foofu ndegam ab yemukaay la di ko déglu xëy na dana continuer comme ni mu ko junjee donte waxi waxaa bi neexut a jàpp waaye su continuer ah luñ ci tegaat nañ ko ci teg wa allahu wasalaamualeykum wa rahmatullah